loo xam ne xëy na ñàkkul euh, am ñu koy foog mooy que peut-être li nga jàppal président Macky Sall mooy lim la tëjoon prison ba sa yaram sutante fa. waaw euh, mais mais est-ce que loolu bokk na ci li la motivé. Euh, xam nga même même ñii di wax loolu. Hmm. da xam nga dama leen di wax ni à juste raison xam nga li tax. Hmm. man je suis un citoyen sénégalais. oui man immigré la depuis ba ma amee vingt deux ans. Hmm. ay xale di dee ci gaal mu nekk gàcce tiis ak naqar. ci ñun en Europe man ma takk samay bagages bàyyi suma liggéey bàyyi suma njaboot kenn musuma kee fay dërëm bi may ñëw Sénégal dama foogoon ni ñun kat dañ ñuy tàcc Sénégal lañ ma toroxalee Sénégal lañ ma tëjee prison ba tey jii man damay faj feebar boo xam ni man chaque fin du mois dama war a dem jëli samay garab avec la sécurité sociale moi je ne peux pas avoir un billet tous les mois damay toog Sénégal ba samay garab geex mu teg ma loo xam ni mënoon naa ñàkk et tey l'histoire ma doon raison. bëggoon ma toroxal devant samay mbokk devant samay njaboot ba mes enfants bugg leen traumatiser parce que suñu papa rek dafa dem seen dëkk ñu teg ko prison donc man alors su ma non attends comment je peux être heureux comment je peux être content il faut que loolu mu man doxuma ci yooyu xam nga man je ne suis pas venu ici au Sénégal pour yenn yi euh, la may dox wóor na ma ni dëgg la su la woon dëgg doo ma invité du dëgg. du dëkk. Mhm. et puis c' est c' est aussi simple que ça nga fii nga daf ñu wax nga bañ a daf ñu wax mois je ne suis pas dans cette dynamique là man polémique ma xëccoowu ma dara nekk ci yoon woo xam ni démb ab sëriñ ba mu ba ma déggee moom ma njëkk a woo ñaanal ma ci. su doon du jël téléphone am di wër sama téléphone ba woo ma mhm. kon dama jàpp ni lii kat mooy dëgg te su dul woon dëgg njaar si xaw ma ko xaw ma li mu njëkk laaj sànq jox leen ma kii bi. kenn seexlu ko suukar mu ñeneen te am na ñu koy woote di laaj di def. Mhm. donc ku ne Boubacar day fayu dinaa fayu mais ne ma la wax ni bokkul c'est-à-dire que man sama plainte c'est différent lii c'est le peuple qui réclame loolu laa wax ni dama bëgg askan wi ñu leeral ñu mais Boubacar Seye ak mag Sall dama la wax ni man am naa ñoo xam ne ñu ngi ciy liggéey dañuy xaar tuuti au niveau de la justice ñu xam qui est le nouveau procureur ak ñeneen ak ñeneen. Mhm. Macky Sall man ak moom je veux savoir ak ñi nga xam ni ñoom kump woon le le procureur ba Serigne Bassirou dama wàcc ñu téye ma le directeur bi nekkoon xaw ma lan fi ñu ma téewoon euh, waa ji fa nekkoon xaw ma lan le commandant Mbeng mhm. daf ma ni je ne vois rien de pénal xam nga c'est le procureur moo ni rek ñu jàpp la alors procureur daf ñu gën jàng wala daf ñu gën a nekk sénégalais wala daf ñu gën ba Boubacar Seye tukki ñëw di dem ñëw ñëw Sénégal nañ ko téye ak ñeneen ak ñeneen le ministre des affaires étrangères à l'époque Aïssata Tall Sall si la bokk Moïse Sarr moo njëkk a jóg bi ñu ma téye ni diffusion de fausse nouvelle bi gars yi dalee ci kawam non diffamation la njëkk wax gars yi dal si kawam mu ne diffusion de fausse nouvelle ak neneen ñoo xam ni dem nañ sax ci plateau yi ne dañ may jàppale nan Boubacar dafa tooñ nañ ko baal pour wut lu neex Macky Sall kenn laa ci gis mu doon ànd ak Macky Sall mooy Maodo Malick Mbaye moo taxaw di Macky Sall da nga juum bu du woon koy téye gars yi dañ la dugal ci erreur ñooñu xëy na su leen Macky Sall jóg leen Macky Sall déglu woon tey du ñu el fi tey kon. mën nga fàttali mën nga fàttali li ñu la doon toppee. liñ ma toppee euh, ñoom ci li ñu bind dañu bind diffusion de fausse nouvelle ñoom loolu lañ ma toppee léegi alors diffusion de fausse nouvelle ci koo xam ni ndem si yàlla Aline Badara Cissé moo organisé. un séminaire sur la migration. J'étais l'expert associé. Il a appelé tous les médiateurs de l'UMOA au Sénégal. man mi maa animé conférence mu jël lépp teg sama loxo. bi bi conférence bi tàngee la représentante de l'Union européenne parce que man damaa bëri ay casquettes dans la migration Horizon sans frontières moo tax sànq bi nga waxee man ni la c'est pas une pétition de Horizon sans mm. sans frontières est une organisation européenne mm-hmm. ay naara ci ay tubaab nga ñu inscrire à ñi seen tur génn au niveau de man maa seen ni ku ñuul je suis le président fondateur ñu doon xeex les d'intégration parce que tey la migration pose problème en Europe mm-hmm. su ma ci may ko développer mais loolu du sujet bi alors euh, je suis aussi citoyen européen xaalis bi gis nga l'union européenne sénégalais yi nañu yow xaalis boobu c'est l'argent du contribuable européen sama xaalis na ngi ci am naa droit xaalis bi union européenne di dugal Afrique pour xeex mbëkk mi m c'est waaw mais l'union européenne c'est l'argent du contribuable européen samay cotisation cotisation ñeneen la ñuy jël di régler seen problème en Afrique on n'a pas besoin de l'aide au développement il faut que les autorités actuelles là qu'on mette les Sénégalais dans ñu mën a liggéey liggéey Sénégal mënuñu liggéey réew mu suñoo liggéey am réew ça c'est juste une parenthèse nii la mbir mi demee ñu ma ni ma ñun kat monsieur Seye lii lañ fi dugal mën naa la yónnee léegi moo tax ñooñu ñëpp ñu dégg ñu may dégg te xam nañu seen bopp programme yi fi dugal ñu ngi ko jox xaalis bi ñu tënk ko jox ma ko ma génn ñu invité ma RFM matin ma ni waa xaalis boobu ñu mu toll nii mais ñooñu fu ñu ko dugal. ñaata la woon ñu ko tey fu ñu ko dugal. ñaata la woon euh, euh, euh, cent quatre vingt millions d' je crois que dix sept milliards de francs CFA te loolu man ma la jot moo tax gisoo allemand yi biñ ma tëjee dañ ne Boubacar li mu wax sax tuuti na. ëpp na entre entre deux mille deux mille quinze et deux mille vingt et un. Hmm. l'Union européenne a a a a dépensé dans vingt six pays africains plus de cinq milliards d' à travers 400 programmes Sénégal gii li mu ci jot mënu la wax ñaata la xaalis boobu fu mu tey lu soo ma doon raison mais question bii laa posé j'ai posé une question d'économie politique ma wàcc aéroport ñu ñu téye ma après trois jours de de xaw ma nu koy tuddee. Euh, garde à vue voilà retour de parquet. garde a vue di la toroxal dans les commissariats. garde à vue mandat de dépôt. oui il a fallu que le monde entier se lève. on me libère au bout de quinze jours diffusion de fausses nouvelles loolu lañ ma téye tey l'histoire ma doon raison tey moom moo daw alors comment tu peux comprendre moo tax man pétition bi la migration def ci feeñaak au-delà du peuple sénégalais qui réclame qui veut savoir tey moom bi muy daw dafa ni maa ngi dem France parce que dañ ma jox liggéey. kon Macky dafa daw. non dafa nànk ah, man daw laa ko tuddee alors euh, comment tu peux comprendre. Mm. le président réplique mu ne maa ngi wuti liggéey au moment où des jeunes sont dans le désert mm-hmm. di li ñu nebal au moment où le Sénégal est le plus endeuillé en 2023 au chapitre des migrations irrégulières mm-hmm. ñaata sénégalais ñoom la seen i mbokk di wër ñaata sénégalais ñoo ñoo ñoo nekk ci biir ndox mi parce que tout simplement amuñu liggéey au moment où lui il a reçu des fonds pour créer des emplois au moment où il avait toute la latitude de créer des emplois moom mu jóg ni maa ngi dem damaa am liggéey non je crois que c'est c'est incroyable ce qui se passe c'est-à-dire que la dignité humaine ah warul woon permettre ma Macky Sall de tenir de tels propos kon man lii laa wax et l'histoire me donne raison et je crois que au chapitre des migrations internationales nous on veut toujours comprendre ma question elle est là elle demeure xaalis yi ñu ci dugal ak ñu ko jox. na ñu jóg leeral parce que tout le Sénégal est endeuillé xale yi ñu ngi ci désert bi xale yi ñu ngi ci suufu ndox mi xale yi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi en Europe ñu tëj ci ay kaaf naan leen da ngeen di xaar droit d'asile seen i mbokk foog nañu dugg nañu Europe alors que ñu ngi ci guddi goo xam ni xamuñu kañ lay fi. alors loolu moo taxoon euh, Boubacar Seye ñu teg la loxo donc tey euh, c'est à juste raison peut-être ci sa xalaat bu président euh, fa premier ministre autant pour moi Ousmane Sonko euh, euh, loo xam ne financement la convention ak finance publique loolu jàpp nga ne lu jaadu la. alors démb la ko wax en conseil des ministres. mais li Ousmane Sonko wax moo normal. Okay. parce que dama la wax ni dañuy tabaxaat. nous sommes dans la phase de reconstruction mais un un un la jox su amul bilan su amul reddition de compte mais on ne peut pas évoluer en efficacité. loolu mënul nekk. Hmm. donc li Ousmane Sonko rek man dama ko ci encouragé. et c'est ce qu'il faut faire ba nga xam ni ëllëg kenn dootul ñemee di akimoo li ñu bokk parce que lu ñëpp bokk nee naa la dëgg rek la ñëpp di bokk kenn du gaañu lépp lu dëgg lalul buñ ko séddoowee. Hmm. loraa nga am loolu ci foofu la toll tey moo tax ñi